buub moo ngeen fukki million suba ngeen da ngeen andi yeneen ñett mu nekk fukki million ñett muy tolloog bàyyi loolu nag secret bi waaw secret bi du lenn lu dut gannaaw buñ sante yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam euh, di nuyu yëpp fu ñu mën di nekk ci àddina bi ñuy suivre réseaux yëpp nga xam ne tey képp kuy taalibe fépp boo mën di nekk sa xel mu ngi ci Medina Baye sa xel mu ngi ci ziyaara bi nga joxe nga ñàkk joxe sa yéene mooy lépp loo xam ne ne rek bàyyi oote na ko rek mooy nga def ci ba tax na secret bii nga wax ne ne tey def nañ ko du lenn lu du bëgg bàyyi rek bëgg moo daana Cheikh Islam te fas yéene koo bëgg ba ilaa yawmi diin te ñaan yàlla yàlla saxal ñu ci loolu euh, taalibe yi signal aussi sama ñu jox exemple ndax bàyyi moo ko xon na ko waxal taalibe yi nañ ma xidmaal nañ ma liggéeyal te loolu nag jublu ma nafun aayidun lii laa laa bal hu nafun aayidun lahum njëriñ li si ñoom lay dellu ban lii ñu defal baay defaluñ ko ko de ndax baay li am am na ko ba pare li mu defal yàlla liggéeyal na ko ba pare li mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal na ko ba pare dem na ba ne damaa taxaw ci bunt bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba gëstuwuma fenn xooluma fenn foofu rek laay taxaw duma ma fa bougé mukk ba tax na ñun tamit gëstuwuñ fenn xoolul fenn ku dul bàyyi ba lépp lu ñu oo ci bàyyi dinañ taalibe yi macha allah jàmbaar leen fu mën di nekk ñu ngi rëjlaloo ngir xidmal baay ndax xidmal baay mooy li nga xam ne mooy mooy raayatu mooy raayatul muraad mooy doyog càkkuteef ndax moo ne wala karaama akbaru min xidmatin lii amul karaama gu gën a màgg liggéeyal ma gannaaw karaama gën a màgg liggéeyal baay te liggéeyal baay man gis naa ne léegi nekkatut ci damal ko tool wala nangam nangam waaye fi ne nii li ngay ñaq sa alal sa wërsëg nga jël ko jox ko baay loolu mooy liggéeyal baay ba tax na ziyaara bii nga xam ne ne ci kanam bàyyi leen ko sos bàyyi nangul leen ko ñoom magi taalibe yi ñu ko koy defal mu mu kontaan ci lool am ay yoon yoo xam ne uute na ko mu wax ci li ci wax mu ne tey bu ma fi nekkoon ak bu ma fi nekkee léegi ban léegi yàlla bu ma fi nekk ban ba léegi yàllaa fi nekk bu mu fi jógee tamit ban yàlla googu du jeex mukk ndax maa kaana lillaahi dama tasalama lam yakun li ghayrillaahi qatan fasa moo tax ñu ngi ndokkeel taalibe yi waaye tamit di ndokkeel imaam waaye du ndokkeel ki nga xam ne moom la moo jara ndokkeel mooy alxalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass yal na yàlla guddal fanam tamay ko wér di ñaanal sëmb yi nga xam ne sëmb na ko fi yàlla dimbale ko may ko kàttan ba ak man mën ba mu mottali ko du ndokkeel imaam ci xër bi nga xam ne xër na ko taalibe yi comme ni ko waajuram daan xëri taalibe yi comme ni ko bàyyi santé waajuram bu nu mu koy xër taalibe yi pour lan pour ñu liggéeyal ko ndax liggéeyal bàyyi képp ku ko defut bés penc di nga ko rëccu ndax wax na ne wa sa yéen demu xëy na man aksara fi xaqinaa xëy na yëpp du àndal kulla fi xabdati rëccu dina waral ba képp koo xam ne dam nga ba bés penc gis na ne lépp lu yàlla di séddale rekk mu ko teg ci tënkam baay ko booba nag képp ku liggéeyutoon képp ku xidmatoon fépp fu ooyee na dañ liggéeyal bàyyi nañ joxe ba nañ joxel bàyyi addiya joxe war rek boobaa yow di nga rëccu alhamdulilah ñun duñ rëccu ndax lii gis nañ ci yokkute def nañ ko daaw gis yokkute ci diggante bi lépp luñ ci nisaroon lépp luñ ci naaroon gis nañ ko ci diggante bi bon nag loo def daaw fekkee ko gis ci njëriñ bu la fekkaatee ren il faut nga jëm ci say kéemtalaay kàttan moo tax na ku nekk xam na jamono doxatina waaye nag imaam fu mu wax rek lu mu wax rek ku em fu ngeen moon daaw rek yow yaa ngi dellu gannaaw wala dama kanam ñun nag fas yi ñoo dellu gannaaw mukk ndax pays bi saa su nekk rek mu ngi wax la day naa ma ziit ñun tamit jaam it su nekk rek ñu wax la ñu tamasid googu lañ bëgg lañ bëggal taalibe yëpp moo tax ñu oo leen ci surtout ma groupe soppee Cheikh Baha di Europe diaspora maa la ñuy gërëm bu baax daf nañ ci taxawaay bu rëy rëy rëy te incha allah fas yéene koo def at bu jot mu gën a taaru gën a rafet maa la ñuy gërëm bu baax a baax a baax ci njiital Amane Ndaw mii nekk sama gannaaw mooy ñëw ànd ak liggéey bi nga xam ne ne indi naa indaale na ko ci ci ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñoom bay Diak ñoom Kumba euh, Diba Demet ñoom euh, Mbaye Italie macha allah group bu am Pastef bu am dëggu ba am na luñ mébét ci pays bi sax incha allah bu ñu yàlla dimbalee dinañ ko antul diggante Europe la ak ak ak Angleterre ak Amérique macha allah muy liggéey bu am Pastef ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla mottali loolu waaye maa ngi ndokkeel samay mbokk yi nga xam ne ñoom laa nekkee fii senegal surtout ma waa Passy Mbitène nga xam ne dañoo am taxawaay bu rëy rëy ci ziar bi ñu ngi ñaan yàlla yal yàlla tegg seen nattu ak seen i di nuyu waa kër Thiamène Kër Sabasi bu baax a baax a baax ni ñuy waa Passy Jéemu di nuyu waa Ndukumaan ñoom alaaj Saalum Ndaw di nuyu mboolem ñi nga xam ne ne xal nee na daf ci ziar bi suba te ñëwagul waaye ñi ñëw ñëwagum tey alhamdulilah euh, sant sant na ci yàlla waaye lii ñu war suba moo raw fuuf waaye maa ngi bu baax groupe soppe Cheikh Mamadou Hadi fii ci Sénégal ak groupe soppe Cheikh Mamadou ci Gambia ñoom El baabu Babou Touré ñoom Ousmane Diouf ñu ngi fi macha allah ñu am passé ñu am dogu yal na yàlla fay leen yal na yàlla nangu seen ziyaara lépp lu bàyyi diggee ci ziyaara bi ci ay ngëneel yal na leen ko yàlla jox. lépp luñ ci def yal na ko yàlla ful la des ful ko gudd fan ful ko wér-gu-yaram ful ko am am ful ko yokkute ci zaahir ak ci baatin yàlla mën na yàlla ko yàlla def waa sëñ ci Amat Fall sëñ Amat Fall ñu ne ñoom dajale neen deux millions six cent lu mu guddi moo tax egseegul waaye konoon da boole ci lii muy sept muy treize te incha allah bu subaa dinañ ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla indi la ci yàmm nangul seen ziyaar bi jaay seen guddi sallallahu alayhi wa